jërëngën jëf yeen ñi siiwul ko luñ koy waxé rek ci Thioké TV ak Andrat Lamba ah. ko luñ ñuy waxee ñaari seet yi tey ñoo dugg ci biir pigine sét ci benn champion bu nga xamni moy barista fu mu nekk ni dali goxi lamb tay bo xolé koñ bi dafa fess del del del del xalé yi génn mag ñi génn ndaw ñi génn ñepp génn lu ko waral moy batis wa koñ bi ñoy kaas nee nañ sa way dafa waram combat far force barki Démo ndjay nak dañoo teud baay goudi en grande surprise ñi gis ay vidéo yi circuler diggante barista ak caatu Wala di bëre si gratuite waaw ñuy bëre si gratuite te ñu leen boole ñu fay leen ñu dóor na ñu namu nañ làmb namu làmb nga xam ne ñoom ñu ngi dem bay bëre gratuite si ay tefesu géej dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu xuus si waxtaan bi Batès maa ngi lay ziar. waaw delloo ziar di la ziar waa àdduna waaw di ziar waa Pikine gi ma dëkk juddoo fi yaroo fi màggee fi xam nga di ziar waa Kaolack waaw di amadul Kaolack sant ñoom Fallou Diop bu baax Séddax Meng borom États-Unis jaagatu pënë yi ay Mbacke Gueye Xaadim Faxe Moussa Gueye waaw sama gaayan ku ma sonal wa di sant wa Dakar go bax ñom demone de Papis neler Fallou Amical sega Nokia Matar sama sama mag xam nga di ziar wa dagudan bu bax wa fi moy suñu équipe la ñun fi lañ judd ay doomu dagudan lañ ak daru wa ak daru ak Jamono wa man 3 3 ac ñom ma ko ak ndam xam nga ak wa naataange bu bax ma len ziar bu baax di ziar wa àdduna di len massaw choono nak wa comme taw bi ni num mu gaay xus ñew xuus ñëw quoi waaw yee mooy loolu Batista dañuy ñew ci carrière barista tay barista ñaar combat la bari wa man 9 combat la am 9 victoires 9 combats. 9 victoire waaw di wax yàlla yàlla xeb doole quoi. neuf combats neuf victoire. waaw loolu neex yàlla de nekkul suñu mën-mën de. dañoo bëgg ñu limal ñu cinq personnes kese yu bari saa daan cinq personnes rek si yi nga mujjee bëri. waaw Boy Sadio. fils de Max. Edouard bu Jolof. ak Sergo bu Jëf Soga nekk ak Baye Mandione Junior. mooy cinq combats yi nga mujjee bëri. waaw. ñu ñëw si carrière Boy Barista gis nañ xale bu mu musaan bëree neuf combats neuf victoire combat da koy yomb mais ñu gis ne Batista ba mu bëree ba léegi gis nañ mu gëj a bëree lan la si yow la wala si kan la. waaw man moom xam nga ni combat do yaaxoo si man xam nga man sama ménagère may jàll la ñu njëkkoon doon wala ma doon utal combat ba waa CNG sax dañ naan da ngaa war dañ naan combat Batista yombul. CNG dañ doon dem foofu teg ne leen avance Batista fi nekk ay 12 mbër benn jour woon nañ 12 mbër. pap sar bi bëggal na ma fi combat pap sar ñoom ma taxaw si replace 7 mbër ko woo mu ne ko xoolal ma lu nooy lamb amul lu nooy jamono juñ toll yaay ngi dégg. 7 mbër ko woo mu ne xoolal ma lu nooy barki alxuraan daam ñoo xamante ne li may wax rek ñoo xamante ne comme lamb waaw ñi ñëw si ñëw pour xare ñëw pour rayante man si genre boobu laa bokk quoi man sama lamb moom du yomb. yow sa gis-gis la moo tax gars yi di la moytu li ngay wàcc si li simple bi la wala yow arme bi da ngay jàpp di dóore wala lan la. waaw loolu tamit si la bokk xam nga waaw ñun meññeeguñ ñun mataguñ ñun mënuñu bëri mënuñu xeex mënuñu dara xam nga ñun suñu mënoon duñ bokk suñu écurie bokk suñu mënoon dañuy yor écurie individuelle ñun kese ñu demal suñu bopp mën moo tax ñu dem xam sa cosaan danga dul comme su mel ñoom moo kos ñoom lëppi ñoom fee ñoom alaaj sëy xam nga seex ñu gaa yëpp ñu ñuy ñu ñuy tete quoi dañu wax defal ni defal ni kon ñun mënuñu làmb kenn mënul kenn làmb kenn mënul kenn biir la day xëy rek wasin mais dégg naa làmb kenn mënul kenn mais mbër bu commencé seetlu naa mbër bu commencé wàcc si lig simple di di di jongante di jël ay trophée seetlu naa gaa lay moytu te gis nañ yow lig simple bi su ma juumul bañ tabasee ba léegi jëlagum ma kaat waaw léegi yow mbër yi buñ demee ba bay moytu mbër yi bëre kon ñoom nañ bàyyi bëre moo tax ma ne mbër moo yombadul jamono ji ma ne la cool yi dina bëri nii nii nii trop mais d'ici peu de temps waaw de yooyu ñooy des te champion yooyu des yooyu ñun si la ñu bokk ma dëkk si goxu làmb dëkk Pikine boo nee làmb da nga naan Pikine xam nga fii bëri ay ndaanaan bëri ay champion yu fi nekk waaw man dama war a reyante xare ba dee te damay xare barki alxuraan non jamono ji moom combat du yomb de Fall. da nga da nga jàpp moytu bi gars yi ñoo xaw a ragal. waaw léegi mbër kay fii mbër soo mënee bëree am doole di xeex bàyyil bëree dootoo bëree barki yàlla ñu dañuy toog ba dañuy découragé lamb kenn duñ jël. barki Demba Ndiaye la moo indi la moo indi sa sa sa bëre deux heures matin xaw ma une heure ma jumul ñu gis la ngay dee bëri si tefes gi sa diggante caatu waalo lan la da nga namu bëre wala lan la. waaw dañoo nekkoon si benn live TikTok quoi waaw ñu nekkoon si live bi di waxtaan noonu gars yi woo ma dama dugal si live ma dugg fekk caat mi ngi fa gars yi di tëkkante noonu quoi ah. waaw mën a bëri sax dama ko daanoon maa ko mën yaa ngi dégg ma ne ko Fall bari sax man man nee naa ko man ma daan xamul loolu de. mu ne dara daanoon moom moo la man gars yi duñ xaaf lañ doon daan mais ba bari sax dëgg ñëwee gars yi xam nañ mbër bi la wax waaye yow waalo boo ko tegoon teg ma sa waay kenn woo xool ma benn ngeen taal sama mbër a ñëw. xam nga mu teg 100000. non non mu ne mu ne boo doon bëggee dama leen may ku nekk 20000 ngeen jënd essence ñëw. sama connexion di di xaw a daw may gis liñ bi après sama papa mi ngi doon déglu affaire bi en direct mu woo ma ne ma sa condition bàyyi daw gars yi dama yaakaar da ngaa daw ma ne ko daw ma ne ko bàyyi ma may ko gratuite moo dem ba ka ñoom umisi umisi rakuta seen la am naa umisi sama xarit la waaw su ah, ma deret ay ñoom mari xam nga ñoom papa sama maman yi nekk foofu sama chéri bi ma taal ko dem ba foofu dugg si live bi ma ne ko léegi waaye da doon teg 40 mille kaa mi dafa loxo gratuite man sama sama maalu mbuur barki alxuraan chaque jour ñaari ngeen ma ñu ngi si léegi nga léegi nga may ko gratuit nga demal Mali ma fekk man maa jóge Bigéen ñoo ko foofu may la ko gratuit yow buñ buñ xaalis ñu dem maag moom ñu sëgg mu mu jóg sàqi ngaan man ni yow ngeen dama ngeen sàqi mu sàqi ngaan naan maa sama baaraam ak fii amul baaraam lamb yaa kuu moo gën a métti waaye ban gars yow ku nag boo jëlee ku nooy def. waaw léegi waaye Sa Thiès Sa damul si baaraam bëri ak moom. waaw dañuy waxtaan comme que dem nga ne ba xëy maye si mbedd gratuit est ce que ñaar du ñu tëgg comme yow moom moom amul adversaire yow amul adversaire est ñu tëgg Ligue Fra léegi. ñu ngi man promoteur ñaar promoteur yu may barki barki mais promoteur bëgg sama combat ak Walo keneen ki bëgg sama combat Kaw Cissé. promoteur léegi yow Walo ou Kaw Cissé tey ban moo la si nga xam ne moom la gënal. waaye man bu saf la gënal man ku ma tuñ ma timbax ma timbax leen ko gaan waalo neen dalaa daan kay comme que yéen ñaar dem ngeen géej leeral ko foofu leerul kon iko nañu ko may si man nekkuma fi pour ay kaaw ak ay ay ay ay caat affaire yoonu ku ñëw dañuy bëre ngaan moom mais kay sa ménagère moo ne doon tëkkante boo doon bëggee ñu tëgg ko ah yéen bokk ménagère ku la yor yow guddi ñu nii Abdou Lahad moo la yor. moo yor waaw. su ñu toll nii Abdou Lahad bëgg na tëgg yéen ñaar seen combat pourquoi waa ñu doon si combat yi. grand combat la ko bëgg sax. grand combat la ko bëgg waaw. a neex de. waaye yow fii dara du fi yombee fii dara du fi nooyee fii lu nooy moo jeex si làmb ni ma la wax sàng rek daa mbër yoo xam ne dañuy ñëw si làmb xarañ woon xam ne ñii ay jàmbaar lañ jaar si rang bi man si rang bi laay jaar man kenn du ma xaalal yoon fàll kenn du ma jox ay paa may nogatu dañuy ñëw si carrière Barissa ñu gis Barissa da nga jékki-jékki aj lig frappe bi dugg si lig bi dem foofu di jël lu waral nga aj fii daw dakaar dem dem si àll bi nekk xale di di oublier si àll bi di jël foofu. man lutte simple laa njëkkee man bu ma amee benn combat avant ma bëri maa ngi bëri mbabat jamono yooyu mënu ma jël saako ceeb man dañ maa suul fu ne daan nañ ma fu ne barki alxuraan dañ maa daana daana daan ba looloo ma def ba di saa bi ma doon nii tey waaw mooy bëri arène demaale si mbabat bi yàlla li ma suturaal mais mbabat mooy tax nga doon mbër dëgg. waaw léegi mbabat boobu noonu daan yooyu moo ma defar nii ba ñëpp amana suma togon yaakar yaakaar ko xam nga écurie écurie mo nek lo xamantene so fa nekke bo len contact da nga xam beure ñep waaw mun nga dem ba nit boo leen na nga xam fi ngay téye ba do la daan keneen ak keneen xam nga bu yagge yow beure ñooñu da nga da nga koy maîtriser léegi imagine la nga dem sa mbabat dajja fak 30 personnes xamoo kenn lu muy beure nga ñew sa xam-xam boobu ak sa doole bopp say ay goor di ut comme yow nga ñew ñaaxal na ba jël ko kokku ndaanaan la waaw ñun dañu nek dañu bokk si ndaanaanu làmb la wax rek jamono yu ni ni dina dina dina dina feeñ diw diw diw diw diw ñooy mbëri mais si kanam tuuti ñu dañuy xam kan mooy ndaanaan yi. est-ce toll nii waroo pose lig lig bi dugg si lig frappe bi comme que waa lig frappe bi nanguwul la jël te problème combat da lay jafe ndax seetlu naa mbër bi wàcc si lig simple di jël problème mu lig frappe da koy jafe. waaye man may mbër man damaa tal ay bàyyi lis bàyyi wu ma salaamaaleykum ku bëgg ñu bëree ku bëggul mu bàyyi damay mbabat man damay xare ngaan ma nii man xooluma ay neex ay gaay de dañuy daw ay góor lañ ah. man waaw waaw fa laay fa laay profité waale dama gis euh, wos Jambar ñu koy utal adversaire amul adversaire yeen ñaar da ngeen ba seen bëkkante ci lik simple wos Jambar mësu ñu bëkkante man combat bobu la gënon bëgg sax ngay wos Jambar combat la comme que moom nee na da ngeen utal adversaire yooyu outal adversaire yeen ñaar combat dafa dafa dafa dafa du yomb nga taxaw naan dañ may outal adversaire amul adversaire da ngay taxaw plateau nga leen wotal leen mbeur bu bëgg wa dama jël mu xol nak appel dina ñëw wa yow wos su ko bëggoon moom ñaari mom ñaari combat la tegle tegle na quatre défaites ñaar viroir la tegle ñun ñu tok ci dynamique de viroir daa waroon ñëw ñu xare suñu biir. ba mu tegle quatre défaites. Kogna de daan sukkandiku commencé ñëwaat na. daan na Kogna de la daan commencé moo ko daan. non avant moo daan Maguette Seck laax daa tegle quatre défaites doo ko daan Maguette Seck ak ndigal. ba mu jugee ba mu daan ko. déedéet déedéet. yi sereen lamb moo ko daan loolu da nga fàtte bokkul. ba mu tegle quatre défaites yi ah, daan Kogna santaa ñi daan ko santan ñing ba waron bëre Youssou Ndour combat bi avorté mu jël santan ñing dan ñing daan ko Youssou Ndour daan ko après ci la ñëwaat daanan magal waaw loolu yëpp mën na nekk waaw mais moom gënuñu palmarès waaw moom bu dee bu dee daa bëgg combat jàng moom nee na jàmbaar la day xamante ne moom day jël si mbabat yi waaw na ñooñu sëgg combat yi neexi gars xam nañ ko de mais ñoom dañuy ñoom dañuy bëgg toog si plateau yi naan gars da ngeen daw ba pare di ut combat bu nooy xoolal xoolal fu mu jël kan la jël te ay mboromam nekk fi kan la jël dégg naa ñu naan amagul combat dégg naa ñu am na combat am na ñu ne ñàkk jaruñu la jël waaye yow comme combat yi saf sàpp yi nekk fi mooy Batista na ñëw ñu bëre nga naan ma nii booy dañ ñëw ñu bëre. waaw ñu gis ni ñu gis ni Batista tamit dañuy ñëw fii Batista tamit. Euh, diggante moog pikin ndax gis nañ bayal bii Batista dafay duy ba mu fees dellu bi open press gis nañ fu mu toog nii fu ñu toog nii rek dafa fees sa diggante kon li nga wax rek si waa gox bi sa diggante ak Pikine. waaw mooy li ma la wax rek Pikine moom xoolal ñun mbooloo mooy doole quoi xàccandoo dóorandoo waaw dombat si sotloo boo ko quoi te man gars yi dañu may sotal waxuma waa Kaolack bu ñu ñëwee dañuy ndax sa combat ñu def ay bisu bisu bis ñëw fekk si waa Pikine waaw ñu dañoo bokk si làmb Fall ñu dañoo bokk si làmb te njàmbaar yi ñoo xam làmb yi xam nañu bari saan daanaan la mais gars yi dañu ma jàppale ma génn. sa diggante grand yi fii si Pikine ku si mel ni Eumeu Sène ku si mel ni Ama ku mel ni tey ko la ñuy wax rek Boy Niang. waaw ñoom sumay deret lañ waaw Pikine li ma lax rek sumay deret lañ Eumeu Sène papaam ak sama maam ñu bokk ndey baay benn deret la ñoo bokk deret buy daw suñu yaram quoi waaw sama suma lépp la waaw sama maam suma lépp ñoom Ama waxi nopp xam nga Pokola Zagop Prince Tas Yaakaar Ëmma xam nga booy Waranka booy Bébé Balla ñëpp ku lim juum Karbala mbër yëpp laa bàyyiwuma kenn. waaw ay ay maade bu sab ñoom ñëpp si Pikine gi lañ bokk. ñu gis ni ñu gis ni yéen génération bi yéen génération yu ndaw yi nekk Pikine ñoo gis yéen ñëpp da ngeen déggoo te benn dànk ngeen gis na ku si xewle sa morom ñëw toog la ma seen secret. waaw xol bu rafet la ñor si ñëpp. Batista man ñi ma xam dëgg soo waxee dañ naan Batista xolam dara nekku si fii ñëpp am fulla fii koo fa jaay fulla mu bàyyi la fi nga am nii te ñun ay mbër lañ ñoo soxla nit ñi da war a ubbi suñu suñu xol yi bien vrai que ñun cœur ouvert la ñor waaw sama papa koo xam xam ni man mënu ma ñëw sama xol di lam-lamee ku xam ma fu ñu ma nuyoo dem naan sa papa ak sa yaay la ay jàmbaar lañ di sonn si man nag waaw moo tax ma bëgg yoon bi gaaw ma teral ko kenn xamul kañ la naka waaye lépp si biir nga xam sa yaay <laughs> gis nañ tey booy bëre ji da ngay daw ñëw kott ko fóon ko doo ko génn sa diggante ak moom. suma yaay la waaw loolu moo ma war waaw loolu moo ma de du ma sori de yow xaaral yow du. <laughs> loolu waay la lool sa waay la lool. waay la waaw sama waay la waaw li may wax rek ñun moom ah ñun ñu fi des yaay. doo war a foog suñu yaay quoi waaw ñu profité profité suñu yaay bu baax loolu la am si lu wax waaw. xam naa a ko sori foofu mais dama ñëw sori fii gis nañ sa grand frère yi nekk biir Pikine jël nañ ay combat sok ay combat yu métti Boy Niang jël Reug Reug Ama Baldé jël ki nga xam ni mooy Franc coow li commencé dugg biir Pikine loolu mooy lamb ñun dañu ñëw opte mbër lamb lamb yaaxal ñu bëri ñu bàyyi jàng xam nga bàyyi waaw ne lamb ñun waruñu combat bu nooy su combat bu nooy ko bëgg da ngay bàyyi moo tax ma ne la daa am combat jàng yoo xam ne mun taxawee da ngay xam ne lii combat jàng la mais ba pare di fës ñu leen waxal ñu ne ñoom ñooy ndaanaane te buñ jugee ëpp làmmin mbëri ba pare di jël ay pas nañ ko non non non nañ ko wax ne dee làmb làmb yàqu na da nga jàpp ne say morom yi ay tàppel lañ làmb laa la wax boo gisoon mbër dëgg laa la wax gars yi dañ koy daw song si di ko doolu ay làmb yu xeere muy bëre fi booy bëree duñ làmb xeere xam nga bëre làmb yow làmb yow cinq dimanche xam nga ñëpp ñuy daan grand combat yi moo làmb bu xeere mbëri dañuy jël seen i mborom da ngay jël mbër bu jël pas daan ko jëlaat pas daan ko nekk si média yi di wax teg boppam champion jamono yi laa la wax jamono yi mbër bu bëgg laa la wax Gris 2 doomu dangu ku bëgg ñëpp ñu dem place Mali wala bu fekk seen fu ñu may leen combat day ku ko moom li nga wax ni kan moo ko moom ay tudduma tur kenn ñoo ah léegi ku ko seetaan da nga gis sa bopp ah man waaw bamba daa mel ni sa waay ñeewul du ma tudd turu kenn kay wax kay day sol tubay tudd turu kenn waaw loolu man ama après gars yi seetaan ni dañ xam bari sa lu muy wax lan la yee saay mbër yi xool fi sa mag ba ñu bëree ba léegi bëriwul xale nekk booy bu ndaw waaw ay waajuram yaakaar ko galas nekk jàmbaar ñëw di def ay di dóor di daan làmb léegi bëggadul loolu làmb bëggadul kuy dóor di daan. ba nga bëree boobu mooy gëj na bëri nañu wax ne dëgg. xool xool mbëru mbabat yi nekk ay ndaanaan man ñaar waaw. waaw moom booba léegi moom daanaka trois ans lay dugg nii bëriwul. soo mbabatee doo bëre. ku mel ne ay Lamine Petit ay ndaanaanu làmb laa la wax tournée mbabat boo dem fekk ko fa ay Sélé Mélé xam nga gars yëpp gaay yi dañ leen war di jël dañoo bokk si lamb ay fiis de Balen waaw tas yaakaar yoon bi daa war a gaaw ñu dañoo war a laale gars yi dañoo war a dañoo bokk si lamb Petit Sélé daanaan la tournant day day lamb saison lumb mu teg ay nagam teg xaalisam te boo ko doon utal adversaire fii ba suba gars yi ko jël les gars ñoom ñu ne ay mbër lañ ñoom <laughs> fii mbër yi xamante nañ de. da mbër dëgg boo bëreetul. léegi mbër moom bëreetul wóor na yàlla léegi yow utal ñu lay waxal si TikTok bi di la live di la yóoxul nga xool ay yow yow. non yow ñu la yóoxul yow waaye yow man su ma yuuxoo kenn bu gars yi yuuxoo ba kenn du la wuyu Modou daa yuuxu bay bëgg a dee ba man moo tax man sama naanaan si naanaan yooyu laa ko bëgg a wane. pour gars yi daa am ñoo xamante ne. yow nga bëgg lu métti yow. man am na ñoo xamante ne xam nañ ma am na ñoo xam ne des nañ ma xam gars yi ñu ngi may lamb-lambe man buñu ma jugé si ay lamb man buñu ma jugé si samay combat melu ma noonu gën naa sadik noonu nga ne ma lan barki alxuraan lamb mën na ñëw nga teg loo xamante ne ne tamit soo waxee gën bu mel ni Bamba du delloo ans bu ko delloo gëree bu mel nit Pa Maguette jël ma am am barki alxuraan gars yi na ñëw ñu bëree i nekkul tamit yow tamit badd bi ngay teg ak xattir bi ngay teg texul gars yi du delloo ans waa léegi góor bu demee bay ragal mburum góoram say wax na bàyyi papa barki yàlla man soo gisee samay interview may woo ay ay kii euh, nu mu tudd jam ceer yi maa ngi wax ko de respect dama ko woo parce que soo waxul kenn du jël cat li ma bëreeg moom li ma ko woo dem fekkoon euh, Mali bi du ko may man melu ma noonu de man maa gënoon noppi fii maa fi gën a yaru barki alxuraan mais lam moo deful si coow loolu doo si dugg ma si jugé di bari saa dafa réew wala dara. non wax ñu doon réew macha allah nga non wuy ma nit ku nekk maanaam yow tey su ma waxee bu dee mën nga faral nii su lu ma wax yow yow di dina la arrangé mais bu dee faraloo ma lu ma wax di nga ma si jugé ne booy bi daa bëri wax booy bi day def lii def ma ngir dara maa ngi jégalu bu baax dama ko def pour bokk si làmb parce que temps mi ngi dem da bëri si bëriwul bu leen ma jugé ngir yàlla <laughs> bari teel a arabtu rek tey batis waxtaan bi neex na tey batis bu amoon loo xamante tey moom lañ ko war a laaj te laaj ñu ko lan lay door ak batis lu tey lu ñu ma laaj te laaj ma ko mooy nan bu amoon lu question boo ne bëggoon nga ñu laaj la ko tey te laaj ñu la ko tey man sama wax leen la sama wax leen la mooy gars yi nañ jëlante suñu biir man lu rek laa bëgg quoi waa xale yi ñu naan ndaanaan lañ mooy làmb ji bëri na ndaanaan de waaw ndaanaan nañ ñu boole suñu biir wala ñu dafa ñu kalaaf ñu xool kuy waaw surtout loolu barista yi gasoo di tëgg Batista yi si kalaaf yi comme que si kalaaf la dugg est-ce si man maa si waroon dugg mais du sànq moo nekk Pikine moo tax bokkuma si kalaaf boobu noonu waaw dëggante naa si promoteur mënuma du sànq bu génnoon ma dugal 2 nel benn jëlal Walo nel ñaar jëlal Tony Junior non trois. jëlal ma ma xool caatu euh, caatu waaw muy quatre nga jël jam ceeri. jël général Malick ko dugal. Serigne Ndiaye na ñëw. Serigne Ndiaye waaw jël booy boobu dëkk parcelle. ba maa ko fi njëkk maa ko fi njëkk kuy dóore. kalfa déedéet ku kii mujjee daan Belende. waaw Belende ba ma ko fi toog nii nii bàyyi ko. ba may daan sama cinquième combat laa leen wax jox leen ma Belende. nii nii bàyyi ko. waaye yow man damaa bàyyi benn mbër man nañ ñëw ma ma leen may kan man noonu. la jógee nii nii bàyyi man li ma wane nii ñu naan daan waneegu ma dara man ak la jógee nii nii bàyyi woo. yow su ma bàyyee mbër yàlla ma yàlla rey man sañu maa ragal sañu maa tapet. a dugg si derbi Parcelles Pikine bi. dama ne dañoo gis sama baba nu sonne si man. dama samay wax dama ne dama bëgg a dugg si Parcelles derbi Pikine Parcelles. dama fee nekk pour Parcelles kese Parcelles bari saa pour tout le monde. man nekk daan ba may daan Edouard Jolof kii Ibrahima Ngabo daan di leen wax jox kenn nangaw leen cooli mooy bëri mais gars yi xamante nañ barki alxuraan beneen na ma nga laaj ak caatu yof kenn laajagu leen nañ nañ ma leen jox moo ne sama ndaanaan bu leen ndaanaan ngeen bëgg gis non da ngeen gis bari bu bees taax barki alxuraan instant lamb ji moo laajatul foo ko waa biir ñëw mën nañ lu ma bëgg saison mooy bëri 3 combats 4 comme sama borom man gars bi ma jàppale nañ am na nañ am ma danañ ma desee jàppale quoi am naa jàppale bu baax na sama baba lu ma joxoñ mu dagg waa Kaolack yi am ay Tafa Diop am ay am sa dex méng zës galaay xam nga